Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dellu nañu ci sunu émission yu ñu daan faral di def entrepreneur leadership ñu jëmoon ko taxawal waaye ñu arrêté woon ko bi koor gi jub si ñu dugg ci koor gi ñu noppaliku ba fi mu nekk nii euh, dooraat nañ ko entrepreneur leadership nag dañuy faral di invité day leader ñu ko xamante ni la création d'entreprise ñi ci dugg wala sax léeg ñu dem ba ci biir politique bi alors tey ñu invité sunu doom ñu invité sunu jarbaat ñu invité koo xamante ni bàyyam fii la nekkoon ci zobi Alaaji Malik bi nekk ak ñun fii ci daayira bi dafa ne Alassane Niass ñëpp xam nañ ko mu nekkaroon ñun fii kon moom tey mooy doon sunu invité Maodo Malick ñas lañ koy wax mu nekk xale bu am ambition xam li mu bëgg xam fi mu jëm nekkoon Sénégal jàngee fa jóge fa ambition yëkkati ko mu am fu mu dem dinañu ko gën a yaatal El malik salaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullah euh, ñu ngi am aussi mbégte bu mag ak jàkkaarloog suñu tonton euh, di remercier aussi euh, Cheikh ci dalal bi ñu dalal ci Al Maktoum TV donc euh, c'est un honneur pour nous. Nous avons xaar aussi question yi pour répondre inchallah allah jërëjëf. Elhadj El kon tay mu melni da nga Sénégal tu as fait tes études au Sénégal.

Mhm. par exemple. Wa question bobu dina faral lol dina contane ci tontu ko parce que comme ni ko L'immobilier immobilier en fait c'est notre passion passion de ci ñun donc nous sommes au Sénégal jang ba suñu jang am fu mu tollu ci lañu euh, ci benn compagnie bu nekk Almadie donc euh, nekk fa charge de clientèle principale mhm. yoroon fa une équipe commerciale donc euh, mu une passion lo xam passionné et c'est cette passion là moom moo ñu continuer di ñu top ba yalla bu mu dogalé ñu jugee Sénégal dem Chine euh, dans le cadre de d'une coopération entre la Chine et le Sénégal donc ñu amone fa bourse donc lolu moom moo taxoon ñu arrêter suñu liggéey boobu ñu don liggéey ci Sénégal ci affaire immobilier donc dem Chine yok suñu jang yok suñu xam-xam donc bu ñu yoké suñu xam-xam ba paré euh, donc ñu né bon qu'est-ce qu'on peut faire donc ci lañ xalat né bon comme immobilier ak matériel de construction dafa am link donc nañu concentré wu def matériel de construction donc si nous ñu yàlla nous ba ñu ubbi bureau fofu donc bu ko défé di yëg ci lepp lu jëm ci immobilier lu jëm ci matériel de construction nous muy carrelage muy sanitaire muy lumière muy lepp lu jëm ci kër maanaam booy tabax boo defee sa gros œuvre ba pare ba toll ci second œuvre bi lépp loo soxla dañ lay defal ce qu'on appelle le one stop solution cest à dootoo soxla dem fenn da ñëw ak ñun ñoo lay wutal carrelage wutal la lépp envoyé la ko ci conteneur bu yàgg Sénégal nga récupérer def sa kër. waaw moo tax nga bi nga demee nga ubbi une entreprise nga tuddee ko Earthstream euh, mu mel ni. tur bi lu la lan moy lan mo waral upstream bobu waaw upstream bi euh, comme ni nga ko waxee euh, lu monté la boo ko dee euh, traduire en français dafa lay jox amont parce que bu amont amee rek aval dafa am maanaam c'est comme chinois yi li ñuy waxee le yin et le yang maanaam luy complanté luy luy luy c'est c'est complémentaire mm-hmm donc euh, bu amee luy yéeg rek peut-être am na luy wàcc donc ñun nag actuellement dañu toll ci yéeg. <laughs> waaw comme comme comme comme ni ko ñëpp hein, parce que Chine moom. Mhm. vraiment euh, partout foo mën dem. Chine rek la ñuy tudd ñoom. tout à fait benn benn benn obsession la ñu am mooy yéeg rek quoi. tout à fait tout à fait. mais ma gis Chine ni mu ni mu compliqué. Mhm. maanaam dafa compliquer. boo fa demee sax doon nit ku ñuul da ngay lañ lay gaaw a ràññee. that's right. boo fa nekkee illégal day compliqué yow na nga dem ba jang fa maîtriser vocabulaire chinois bi di ko làkk normalement ubbi fa entreprise di employé ay ay chinois phénomène bobu la bëggoon nga expliquer comme en ci tënk rek nan nga koy dundé waaw loolu aussi euh, ku xam Chine tey ak fi développement toll da ngay gis ne c'est un pays euh, ba nga xamante ne économiquement euh, ils sont forts donc beaucoup d'effets. defee ñu avons une passion wu jang. Madame pour man aduna chaque jang. Donc donc nous sommes en Chine ñu concentré wu ci c'est seen lac aussi jang sen économie jang sen culture parce que culture aussi dafa am solo business parce que booy jëflanteeg nit muy sénégalais wala muy chinois wala muy ku mën di doon war nga xam ci culture am pour mon a jëflanteeg donc euh, bi ñu demee gis leen ñoom ils ont la culture du travail parce que man mindset bi ma amoon bi may jóge Sénégal je je toujours passionné du travail donc ci loolu lañ ma yar donc loolu la xam mais bi ma demee chinois yi dañ koy yokk en fait nit nag foo demee fenn sa lu yaay xool li nga fay xool loo fa loo soxla rek peut-être moom nga fay bu dee yow liggéey moom moo la ñor boo demee ci loolu ngay concentré donc dañ ma inspiré ci gën ma yok fulla gën ma yok jom donc euh, voilà loolu daal laa xam ne moom jàng nañ ko foofu mhm. donc chaque jour ñu ngi ci ñu ngi gën a góorgóorlu di ko gën développé nga am fa sa entreprise mais sa entreprise bi légal tout à fait maanaam am na këyit yëpp yaa ngi fay say taxe yaa ngi fay say impôt tout à fait kon ni ngay employé say employé aussi yaa ngi jëflante ñoom normal. tout à mais nga gis ne xam nga ñun nañoo yàgg dégg matériel chinois. Mm-hmm. boo ne boo ne chinois rek da ngay koy jaalee ci deuxième choix fekk mais mu mel ni léegi yaa ngi gis ay matériel yu nga xamante ne nii de high la high class la ay matériel yu baax ay yu dëgër te j'espère yow ci boobu gaam nga nekk. Euh, tout à fait euh, wàllum euh, loolu par rapport ak Chine fake et tout ça donc Chine dafa nekk dëkk ba nga xamante ne dañuy adapté wu par rapport ak budget wu nit ki mhm. par exemple yow mën nga ñëw ne par exemple man j'ai un budget de X ñoom ils vont essayer de s'adapter par rapport ak budget bi nga yor pour jaay la mhm. léegi boo xoolee fii ci Amérique bi ñu nekk nii ci New York moi j'ai fait le tour par curiosité ma génn dem fu mel ay Home Depot xool seen matériel yi parce que ci loolu laa nekk mais bu ma xoolee daanaka li ma gis yëpp made in China mhm. <laughs> donc su ma gisee ne donc loolu ça montre que euh, am nañ lu baax am nañ aussi tamit moins de gamme je dirais pas lu bon mais dama naan moins de gamme mais man nag yàlla dogal na ñi may liggéeyal ñëpp c'est des gens yoo nga xamante ne dañuy bëgg lu baax mhm. donc ils vont ils font des villages de luxe ils ont des appartements de haute standing mhm. donc bu ko defee ñun ci lancé boobu la ñu nekk ci lancé boobu ngeen nekk alors euh, comme ni nga wax ah, ñun Amérique fii yàgg nañ fi ba ci téléphone yeeg lu mu mën ci doon soo demee fi ñuy jaay fourniture yeeg yëpp made in China lañu lañuy def moo tax ma ne euh, li may gis ñu wax ne Chine deuxième choix lay def donc vrai matériel bi nga xamante ni mooy bu dëgër bi mooy bu dëgër dëgër bi yëpp ci kaw je crois que aussi loolu ñoo ngi ko fay ñoo ngi ko fay def te yow ci loolu comme ni ma la ko waxee noolu ci loo boobu domaine ngay ngay ngay yëngu. tout alors mu mel nii tey su fekkoon ne tey man dama tabax sama kër moo xam ndax dama def R plus plus 2 ou R wala sax yéeg ba ca kaw su ma nee damay def sama gros rek mën naa faa yem jëflanteeg yow. tout à ne la am naa lu nga xamante ni R plus 1 2 dama bëgg nga équiper ko ndax da ngay ñëw envoyé fa ay techniciens ñu ne ñëw defar mesurement yi ba ci bunt ya ba ci sanitaire ba ba ci euh, plomberie bi ba ci électricité bi ba ci light yi lamp yi ndax da ngay invité rek wala da ngay yónni nit mu ñëw jël mesure bi euh, nga laaj ko yan couleur nga bëgg bu ko defee yow nga man ko satisfaire ci euh, ci ci genre équipement boobu. Mm-hmm. Euh, wow. Euh, comme nous l'ai dit, ce qu'on fait, c'est du one-stop solution. One-stop solution, mais il fekk ne nga defar sa gros œuvre Nous sommes dans des réflexions euh, des aussi avec ay architectes dans l'avenir, on est en train de réfléchir ndax qu'on lañ lay faire from gros œuvre yi dem ba second ba jox la sa caabi Nous ñu ngi train di réfléchir mais pour le moment en train toll faire, yow bu fekkene ne nga def sa gros œuvre pareil, def sa tout ce qui est fer ciment béton. ba nga yëkëti ba pareil. ñun ci lañuy intervenir ñun bu ñu intervenir nag foofu aussi tamit benen xeetu one stop solution lay doon moy euh, peinture bi tout ce qui est peinture mën nañ la ko fournir mën nañ la fournir carrelage mën nañ la fournir lumière mën nañ la fournir sanitaire plomberie ak robinetterie léegi bu fekkee ne da nga bëgg aussi mën nañ la importer mu ñëw Sénégal yow nga am say technicien posal sa bopp bu la neexee aussi ñu jox la ay technicien mu posal la mhm. donc euh, ça dépend ci on s'adapte par rapport ak comme ni ma ko waxee sànq rek comme chinois yi dañuy adapté wu ñu nit mhm. <laughs> ils nous ont inspiré ñu nit dañuy adapté wu par rapport ak lu lu lu lu ci waay soxla rek euh, euh, ba ba ci ba ci ba ci lumière yi aussi ba ci lumière yi tout à fait waaw bu ko defee yéen ñaari ñaari ñaari choix ngeen jox ni ngeen di joxe mhm. soit mu commandé ma lii laa bëgg ma commander indi ma su ma neexee ma wuti sama ay nit ñu installé ma. tout à fait su ma neexee ma ne la yow mi nga xamante ne nii yaa ma koy injil ci loolu ngeen di yëngu. Mhm. yow nga man ma envoyé. carreleur say nit ñoo defaral ma. ñaari choix yooyu ngay def. tout à fait mais di ngeen yëngu aussi ci décoration. dinañ yëngu aussi ci décoration dinañ yëngu ci décoration dinañ yëngu ci euh, équipement.

lépp loo bëgg yaa xam sa chambre à coucher yaa xam sa salon ba ci télévision yi yaa xam ban size nga bëgg aquarium bi comme ni nga ko waxee maanaam lépp luy décoration wu kër su ngeen déggoo mën ngeen ko ko envoyé te yaakaar naa ne envoyé bi du yàgg envoi bi dina jël 45 jours conteneur bu jógee Chine di dem Sénégal dina def 45 cinq jours mhm. donc euh, mais après 45 euh, jours après commande 45 jours manam buñ la comment ça dépend parce que am na yenn bagage yoo xam day am stock. Mhm. donc dañuy ñëw rek récupérer rek duggal ci ko dem pratiquement en Chine tous les 15 jours. Mhm. wala tous les mois chaque mois benn conteneur ñaari ko yu départ Chine di donc les les bagages c'est déjà fini stock là. nañ lay jël rek dugal ci conteneur mu dem Les léeg nag bu fekkente ne c'est un commande assez spécial parce que am na wax dañuy personnaliser leen seen bagages bagage mhm. dañuy bëgg ne la bii couleur la bëgg nii laa bëgg nga ko parce que nous on travaille qu'avec des usines mhm. usines la ñuy liggéeyal donc euh, beaucoup bëggee ñu personnaliser sa bagage avec nous c'est-à-dire l'avantage les nit ñi di am ak ñun moy da ngay am embarras du choix mhm. da ngay am le choix parce que mën nga ñëw dem Sénégal fekk ne salon bi rek lañ amoo choix. Mhm. mais avec ñun on te dañ lay envoyer nga xool ne waaw bii laa bëgg ñu defaral la boobu exactement mu ñëw Sénégal nga récupérer sa mu ngi noonu euh, mu mel ni kon euh, euh, yow da ngeen di envoyer vidéo à travers vidéo yi yow nga tànn li nga xamante ni moo la gënal. Mhm. boobu mooy avantage au client. Mhm. parce que client boo demee fenn au niveau du Sénégal. Mhm. day xool la fa en fonction la fa nekk rek ci lay jënd. or que man mi nga xamanteni ni tabax na sama kër ba nopi wala bëgg naa changer sama décor kër. Mhm. man maanaan bi couleur la bëgg. tout à fait nga jox ma ay vidéo euh, ci salon ci chambre à coucher ci lépp rek. Mhm. ma mëna def sama choix. tout à fait defe naa kon fofu sunu avantage la ñun les clients. tout à fait avantage aussi bu clients yi am muy euh, actuellement dañu am entrepôt au niveau de Dakar. waaw boobu accès guñ ci. su ba paree Chine ñu mujjee foofu Dakar. Mm-hmm. Euh, ci li nga xamante ne nii mooy paiement bi maanaam fay bi. Mm-hmm. tey man commandé naa li ma commandé lépp ça me revient à 50 millions. Mm-hmm. je donne un exemple. Euh, lii laa bëgg couleur bi laa bëgg sanitaire bi lii bii laa bëgg bunti yi machin et cetera en tout cas bu ñu calculer bu nekk un montant de 50 millions. tay 50 millions bu yoyu tay suma ko commander bo noppi paiement bi nan lay nan lay euh waaw paiement bi ni muy demee mooy euh, bu fekkente ne dafa lañ la facture ba nga valider sa facture xool euh, couleur yi et tout ça bo lepp doy la euh, ici aux États-Unis stratégie bu ñu jël euh client bi dafay joxe la moitié. Mhm. dafay joxe la moitié. 50 pour day joxe les 50 bu fekkente ne millions la. mën na joxe 25 millions bu joxe 25 millions ñu jëndal ko dugal ko ci conteneur yi yóbbu ko Dakar bu yóbboo Dakar bu ñëwee di récupérer sur place mu complété après jël marchandise am bu vérifier ba tout est correct mu complété jël marchandise am. waaw boo gisee ma insister ci loolu. des fois dafay am ay ay ay problème mm-hmm. parce que des fois le client da fay commandé ñu jox ko lo nga xamante ni commandé wu ko won tout à fait loo xamante ni woon la. Mhm. Euh, mu mu commandé original ñu indil ko lo nga xamante ni méngoowul. Mhm. ak mom limu limu li mhm. donc je crois que euh, euh, paiement bi da fay nek lo ni da koy fayé à partir de de Sénégal. euh bu ko défé l'autre moitié su marchandise bi ñëwee. ba nga xol vérifier ba lépp ok na. nga soga def ce reliquat. tout à fait su fekkee ne aussi yow ya wara def liguey ba ci bir dañuy baye ba liguey ba paré mhm. ñu soga fay. Mhm. wala wala nan lay démé parce que su fekkee ne envoyé na samay matériel des carreaux la peinture euh, et cetera yow nga wara def liguey bi. Mhm. Euh, ndax damay xaar ba say ouvrier paré ma xool liggéey bi ba mu normalement soog a fay le bi wala lan. Mhm. waaw bu fekkente ne loolu la xam nga daanaka comme ni ma ko waxee rek on essaie de s'adapter. mais ñun suñu euh, xalaat mooy ñu yombalal. client bi à chaque fois li mu bëgg. Mhm. Euh, parce que même li ma la wax noonu 50 bi sax mën na nekk possibilité bu ñu jëflantee jëflante mën na sax bañ a nekk 50 pour mën na nekk moins mën na nekk moins mën na nekk 30 mhm. wala ñu jëndal la ba mu yegg Sénégal ça dépend de la confiance qu'on a. Euh, nga am ci nit ki. voilà parce que aussi je pense que euh, client bi. war na xool ki muy jëflanteel mais ñi nit war nañoo xool kan la ñuy jëflanteel. important donc c'est important donc bu ko defee. Mhm. Euh, mën nga sax ñëw ñu jëndal la yóbbu ba Sénégal nga doog a fay mën nga aussi jox 50 pour cent mën nga joxe 100 pour cent bu dee pause bi aussi tamit ñu wutal la ñi nga xamante ne bon comme on a l' expérience ça fait plus de 10 ans actuellement que ñu ngi dans le secteur de l' immobilier mmh. ak le secteur de matériel de construction mën nañu ne ah on te conseille de travailler avec le carreleur ak carreleur bii wala électricien bii wala bii bu boobaa nag yéen yéen ay waxtaan seen biir xool euh, mu ngeen ci prix après mu mais ñun le matériel de construction de qualité mhm. parce que matériel de construction qualité pour pose et tout ça pas un problème. ce n'est pas un problème bo malade aussi c'est parce que dama gis. Mhm. ay ordre ci yow meuble mhm. nga tout à fait joxuñu joxewuñu avance. ma gis envoyé nga ba mu récupérer. nga woo leen ne leen sa waa ji na. ñoom ñu sog a fay. donc euh, te yow fii rek nga leen xamee. Mm-hmm. donc confiance boobu nga am ci nit ki aussi. Mm-hmm. Euh, il faut ñu wax ko aussi euh, ñëpp dégg ko. Mm-hmm. mu mel ni aussi bu ñu jeexalee kon ci Chine. di nga def lu ñuy wooyee forcing right. forcing en maanaam leneen lu bokkul ci liggéey bi nga xamante ne nii. Tout à fait, tout à fait. en fait, notre main business, c'est le matériel de construction. Donc, je peux dire que 90% de notre business, matériel de construction, le plus de ci mhm. mais il y a 10% on fait ce qu'on appelle du sourcing comme nous avons fait on a nos bureaux qui sont légaux en Chine on a une équipe qui est en Chine donc euh, équipe Bobu par exemple yow mën nga nek fi États-Unis wala nga nek Sénégal mhm. né dama bëgg euh, défar tabax boulangerie Sénégal mhm. donc le matériel boulangerie soxla four yi soxla le yëpp donc bu ko defee yooyu mën nga ñu contacter boo ñu contacter avec notre équipe ñu mhm. wutal le matériel bi dugal la ko ci conner mu ñëw Sénégal mhm. wala nga ne dama bëgg amaat beneen unité de production machine yii laa soxla wala lii wala menuisier laa dama soxla machine buy raboter buy dagg wala lu mënti doon mhm. mën la ko jëndal aussi dugal la ko ci conteneur bi ça aussi c' est loolu dafa bokk aussi tamit ci une partie ci suñu business ci li ngeen di def ci li ñuy def moo tax euh, euh, keneen ku nekk menuisier keneen ku nekk un plombier keneen ku nekk sax am salon de de de, de coiffure. y a certainement des matériels yu nga xamante ni am na foofu te dafa ne bu ñu jàppalante ak yow di nga leen mën satisfaire. tout à fait parce que maa lay wax léegi am na ko soxla matériel de musique. Mhm. nga ne amul problème. Mhm. Euh, bu seetee ba xam ban façon la bëgg bu ko defee je me mets en contact ak ñi nga xamante ni ñoo ko fay jaay. Mhm. yàppal feu. tout à fait donc ñoom ñi nga xamante ni ñooy jaay fournisseurs yi nekk Sénégal Sénégal di jaayaat. yow da nga leen koy jubalal directement. et que nit ki dina ci mën a gagné lu bëri. kon bu fekkee ne amatoo Chine leneen lu ñu fa war a wax ñu mën a conclure ci Sénégal. tout à fait c'est c'est c'est bon. c'est donc euh, mu mel ni kon entreprise bi ngay ubbi nii. Mhm. ñu tuddee ko upstream. Mhm. da nga am succursale Sénégal. tout ubbi nga ko Sénégal ni nga ko ubbee Sénégal mooy da nga am. Euh,

ndax SOS mën na jël nga xamante ni nii saa bu ñu soxlaa dara rek bu la woowee euh, man faa directement bien entendu en dotant le numéro de téléphone euh, du Sénégal. Euh, tout à fait sànq bi may ñëw avant ñuy tàmbali émission bi j'étais en train de faire le point ak emploi yi nekk foofu au niveau de Dakar. Mm-hmm. parce que au moment où ñuy def émission bi tey am nañ conteneur bu yegg Dakar. Mm-hmm. donc ce qu'on fait mooy dañuy xool li nga xamante ne sénégalais soxla nañ ko. Mm-hmm. Euh, léeg leg mën na nekk des produits saisonniers par exemple au moment où je vous parle Sénégal ku nekk xam ne dafa tàng. Mhm. donc am nañ un lot de ventilateur boo nga xamante ne yeggal nañ ko Sénégal. Mhm. tey lañ doon dépoté conteneur bi. Mhm. donc bu ko defee euh, à part loolu aussi dañuy am sanitaire. dañuy am lu mel ni spot parce que léeg-léeg nga bëgg a tabax. ne waaw man de soxla naa ay 90 vingt dix pot soxla naa lii mais bon au moins temps di ko importer muy jógee fële di ñëw. donc da ngay dem à l'entrepôt directement nga ñëw ñu jaay la ko foofu directement nga dem nga ne soxla naa dix sanitaires chaises anglaises. soxla naa lii soxla naa laa ñëw la demal directement à l'entrepôt nga jël mhm. donc euh, ni ñuy defee commande muy jógee Chine di ñëw léeg-léeg aussi tamit am na ñoo xamante ne du ko jar dañ naan leen di yebal directement mhm. bu fekkente ne am nañ le stock sur place ñu yebal leen directement ñu dem à l'entrepôt récupérer dem à l'entrepôt récupérer ku mu mel ni tey su ma soxlaa bunt am ngeen fa yoo xamante ne ay porte standard tout à fait da ngeen di ñëw su may tabax yàkkamti man na ma faa ñëw jënd ay bunt standard tabax sama tabax en fonction ni buntu bi toll parce que en général buntu yépp ñoo yem mhm. à part que mu am spécial mhm. am ku am buntu bu reuy bo commandé loolu mhm. spécial la donc spécial commande lay doon kon mu mel nii tey bu ñuy wax ci ay divers sax Sénégal xam nga la sécurité daanaka léegi dafa doy waar au niveau de la du Sénégal gis nga bu yàggul rek caméra boobu wane ay agresseur di agressé ba dugg ci biir kër. mais dugg ci biir kër nag kooku moom ku ne imaginer woon na lu ne ba mu des loolu. alors donc bu dul woon caméra de surveillance boobu tey xëy na agresseurs yooyu duñ leen jàpp mais finalement je crois que arrêté nañ ci benn wala ñaar mais li ma bëgg wax mooy sécurité amatul Sénégal bëccëg ndara kam nit di topp nit muy daw nekk ci. seen genre moto yooyu. Mhm. di la dàq ngay daw bu dugg ci sa biir kër mu fekk la ci sa biir kër. Mhm. jël jaasi nar la ko dóor pour rek. nangu sa alal mën a nangu sa alal. alors genre caméra yooyu est-ce que yéen a ngi ciy yëngu bu baax a baax a baax parce que Sénégal en a besoin. Mhm. soxla na c'est caméra euh, si vidéo soxla na euh, la sécurité au niveau de la porte des sonneries euh, soxla na lu nga xamante ne c'est comme la télévision boo nekkee si biir kër bu nit sonee da koy xool ba xam kan la. Mm-hmm. gis naa ñu koy jaay au niveau mm-hmm. du Sénégal est-ce que mm-hmm. yooyu. Euh, yéen a ngi ci yéen pour mën a ñëw gën ko facilité nit ñi mën leen ko jaay à un prix vraiment euh, bu normal quoi. Euh, yooyu tàmbali nañ ko ba pare comme ni ma ko waxee am na au niveau de la Petite Côte aussi am na ñu may jëflanteel ñenn ñi c'est même des footballeurs et tout donc am na ñu ciy defar ay villa ñuy defar ay villa de luxe donc ñu ci bëri damay jëflanteeg ñoom d'ailleurs am na ci kenn euh, ñëw na fekk ma Chine donc ñu jëndal ko matériel de construction bi war a dem ci euh, villaam yëpp mhm. donc loolu caméra de surveillance yi bokk na ci mhm. parce que sécurité moom ku ne soxla na ko mhm. donc caméra de surveillance yooyu dañ koy def mooy moo day dugg ci 10 pour cent bi ma wax sànq rek 90 pour cent mooy matériel de construction bi am na beneen dix pour cent ba nga xamante ne lu waay soxla rek loo nga xamante ne euh, lu mën di doon rek parce que comme on dit la Chine c' est l'usine du monde. Mhm. fu la lépp di jógee. Mhm. donc euh, am na loo nga xamante ne par exemple man du ma ko maîtriser da ngay ñëw taxaw ne ma Malick soxla naa. Euh, benn mixeur nga jox ma référence technique rek man jox ma mhm. référence technique boo ma joxee référence technique le reste on fait le travail. ok jox ma référence technique rek et puis on on fait le travail. boo gisee ma insister ci loolu toujours de la sécurité. parce que non seulement sécurité bi mais daanaka light lumière amatu fa da ngay dugg ci koñ mu lëndëm. doo xam foo jëm. waaw donc am na ci ay lampe yu nga xamante ne nii da ngeen koy installé bu ni trombé rek lampe yi tàkk. tout à fait en parlant de lampe yooyu sax justement au moment où je vous parle à l' entrepôt am nañ fa ay euh, projecteurs solaires. Uh-huh. ak ay street light. Uh-huh. projecteur solaire yi mooy comme yi nga wax noonu da nga koy def sa buntu kër rek pour sécurité. Uh-huh. bu nit rombee day tàkk. bu romb bu demee mu fay. mu fay la aussi nga régler ko par exemple nga né de minuit à 6 heures du matin là bëgg muy continue mhm. bu du matin mhm. donc euh, voilà projecteur yi moo euh, euh, solaire la solaire la ah. du du du du courant bo xamanteni dañ koy nangam nangam. non non solaire la solaire le Sénégal na. Mhm. su mo chargé wu. tout donc loolu képp peut am kër. képp am kër rek war nga ko war a mën a am. Mhm. donc maa Cheikh mi ngi may wan sax les images. Mhm. vraiment lii kenn ku ne war nga ko am. Mhm. la sécurité. boole kooku li nga xamante ni nii mooy la lumière ba nit ñi xam ne. bu nit ñëwee ci sa buntu kër. lampe yi takk mu am lu muy ragal. dëgg la donc loolu vraiment damay damay damay encourager les sénégalais. ñu def loolu ñu ñu ñu toppatoo lu mel noonu parce que c' est c' est c' est important. alors donc defe naa ne ku am vidéo. caméra vidéo yi. am lumière bi defe naa ne euh, lu bëri dina mën a wàññeeku. dëgg la te buñ ko fi doon toog di ko lim ak di ko lim. Mhm. gis nga par exemple c'est genre chaise anglaise yi leen may gis. Mhm. yu nga xamante ne nii pratiquement. Euh, daanaka automatique la. Mhm. da ngay tok rek ndox ak lepp da fay di. tout bopam mhm. euh, genre façon bu nek boko ko man na la ko jox gis nga lëlay ba ci lumière yi. Mhm. dafa daan Cheikh dina ko génnee en fonction pratiquement li ñuy ba def émission bi. donc mu melni ni Maodo euh, ñoo ngi jëm ci cappaandaw gi. donc li gënoon am solo. mooy defe naa ne usine bi nga am au niveau de Chine. succursale bi nga am au niveau de de Sénégal ba ci fi Amérique ku la bëgg a contacter di nga euh, numéro bi léegi defe naa ne mooy le. 718 mhm. euh, mooy non. tout à fait waaw le 718 530 23 83. tout à fait donc ku la bëgg a woo New York mhm. numéro bii. Mhm. la lay woowee te numéro bii am na WhatsApp. tout à fait euh, ba ci Sénégal ku la bëgg a woo it. mais lan mooy numéro bi au niveau de Sénégal. Euh, bon ñaari numéro la yor pour le moment ben bi sama numéro euh, fii la muy bi nga wax noonu. 718 530 23 83. am na beneen numéro ba nga xam ne tamit c'est un numéro professionnel mooy sama numéro Chine. Mhm. c'est le 151 16 24 5 5009. mais au niveau du Sénégal aussi mën naa joxe numéro employé comme ça bu ko defee. Mhm. ku bëgg dem xooli entrepôt ba. directement voilà mi au niveau de Cité Soprim cité Soprim le côté police ou parcelle ou police parcelle mhm. donc il le dépôt bi mhm. donc vais euh, vous jox aussi numéro ki fa nekk. Euh, Ndoye la doux. il est au 77 478 38 79. voilà mon mon fa nekk lu waay soxla rek bu demee entre pour Inshallah de dina ko fa fekk. kon cher defe naa sunu émission

mu nekk vraiment lu nga xamante ni dafa nit ñi nañ ko war a encourager tey jii dugg Chine depuis trois ans extrêmement difficile pour ne pas dire sax ta nekk il faut que nga nekk un résident pour mën di fa dugg ak di génn kon les gens là mën nañoo profité wu ci lu mel ni ku mel ni moom mhm. vraiment di def say commandes yaa xam loo mën a bëgg parce que Chine amul lu fa amul quand on parle des États-Unis États-Unis matériel Chine moo fi ne. te ñoo ngi ciy dund ñoo ngi gis ku ji Sénégal ñëw ba fii jënd fi matériel yóbbu te waroon a dem Chine mu nekk la presque la moitié du prix. alors donc maa ngi encouragé euh, la clientèle maa ngi encouragé en tout cas les Sénégalais ñu jël référence ci moom xool ci moom yëkkati ko. parce que ñun dañuy bëgg koo xamante vraiment dafay yëkkatiwu. Mmh. te comme lu mel man maa ngi koy soog a gis fii ku nekk Chine. ñëw fii bu ko fee résider Sénégal nga am fa sa storage vraiment dafay nekk lu nga xamante ne nii nañ ko bëgg di yëkkati ci kaw may ko courage donc euh, yal na yàlla jàppale la amiin yal na yàlla dimbale la amiin euh, xool nit di fayee la la yàlla di fayee mm-hmm. te yow sa baay dañoo bokk ak moom fii ci zawiya Alaaji Malik dëgg la ñëpp xam ko fii dëgg kon tey boo ñëwee mhm. ñun danañ def suñu kentulay kattan suñu maximum mhm. pour jàppale la moo tax tey ñu jël émission bi jagleel la ko di la wax nga joxe sa dernier mot muy sa tàggu mhm. waaw sama tàggoo rek mooy euh, di wax euh, mbokk sénégalais yi nekk fii Amérique comme ni ko euh, sama papa bi waxee ñu ngi fi ci dëkk bi donc euh, n'hésitez pas numéro téléphone yaa ngi noonu lu ci waay soxla rek du war a tabax Sénégal mën nañoo contacter incha allah bu ñu jëflantee dina dina ci am satisfaction donc loolu daal lay tàggoo di di leen remercier di leen remercier wu tonton Bathie di remercier Cheikh donc euh, voilà jërëjëf. mu mel ni sax maa ngi gis. Euh, <laughs> uh-huh. ci image yi ay lu mel ni ay piscine ak yi. Mhm. lii daal la jacuzzi. jacuzzi la waaw jacuzzi. jacuzzi la kii dafay ànd ak da euh, lay maase ndox bi daf lay. en même temps bu la neexee nga saraan ci télé donc bu la neexee nga déglu ci musique speaker am na am na lépp. am na lépp c'est très moderne. mais Maodo Ba cherul. Hmm? non cherul. non cherul waaw mu ngoog. <laughs> non cherul kon kon kon Cheikh mi ngi noonu. Euh, kon euh, na ci ñëpp jàpp. Mhm. Hmm? ba beneen ci ay émission di nga dellu si waat fii xam naa. ñu defaat encore euh, leneen ba ci sax maa ngi maa ngi gis ñuy commandé ay fauteuil yu nga xamante ni fauteuil de massage la mm-hmm. fauteuil yu mag da ngay toog tàllal say tànk mm-hmm. mu maase la ni nga ko programme ba nga jëlee fa ay nelaw mm-hmm. donc gis naa muy wax muy muy muy ay ñu koy ci genre fauteuil yooyu donc yaa lépp nga fa yaay xool li nga bëgg nga commandé ko mu dimbale la la nga doon fay pratiquement di nga am 25% de réduction. Mhm. parce que non lay démé kon Cheikh ñu ngi leen di nuyu bu ba encore. Mhm. di leen de nak mhm. ba ci benen ci ay émission entrepreneurial leadership. alaikum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin ndax la ñu àndandoo at yi yëpp ak sang bi Cheikh Sidi Ahmad si muy Washington DC si suñu boroom dimbali nañu ba gis nañu place ba rëy na yaatu na mën nañ fa julli waxtu yu juróom mën nañ fa julli jumaa mën nañ fa julli iid mën nañ fa burdu mën nañ fa gàmmu communauté bi mën na fa màggal mën na fa di cant bépp xew-xew islam am rek xaj na fa place ba yaatu salle de classe xale mën na fa xale mën na fa la ndax communauté santé tamit lay doon ñun ñëpp ko bokk mbokk julli bi foo mënti nekk ñu ngi lay tàllal suñu loxo wax numéro mën ci mën ci ci contribution islaam amatina ndam alhamdulilah rabbil alamin wa barakaatuhu mbokk yi dañoo alhamdulilahi rabbil alamin ndax la ñu àndandoo at yëpp ak sang bi Cheikh Sidi Ahmad si di ko wut fii ci capitale États-Unis muy Washington DC yàlla suñu borom dimbali nañu ba gis nañu place ba rëy na yaatu na mën nañ fa julli waxtu yu juróom mën nañ fa julli jumaa mën nañ fa julli iid mën nañ fa bordu mën nañ fa gàmmu communauté bi mën na fa màggal mën na fa daye di cant bépp xew-xew bu islam am rek xaj na fa ndax place ba yaatu na am nay salle de xale mën na fa jàng xale mën na fa yendu ndax communauté santé tamit lay doon ñun ñëpp a ko bokk mbokk julli bi foo mën mënti nekk ñu ngi lay tàllal suñu loxo di la wax nii am nañu benn numéro boo xam ni mën nga ci zel mën nga ci cash app ci benn numéro boobu muy 202 763 52 53 ñu ngi xaar seen contribution islam amati na ndam alhamdulilah rabil alamin